oui mais question de de d' objectif tout dépend kenn ku si nekk stratégie bi nga am euh, j' estime que ni l' opposition développe la version Macky il faut tout faire euh, pour que ñuy gën a bañ Macky Sall. Mm-hmm. ñi si ëpp seen liggéey si loolu la nekk bañ nañ ko ba nga xam ne que ni fu mu jaar nañ ko yuuxu mais ñi ëpp ñi koy def loolu c' la frange de de Pastef. qui ko beaucoup travaillé sur cette frange jeune là euh, jël langage yu jeune boobu xam nga am na loo xam ni tey PM du ko wax. PM sañ na taxaw fii moom ak jaar-jaar bi mu am <laughs> taxaw si kanamu Sénégal yi naan leen ñafal ñafal. <laughs> moom dana toog di déglu Tarba Mbaye dafa tal loolu <laughs> bu buy wax ay référence am leneen lay doon léegi léegi mi ngi cité ay. ay accord mais PM waaw mais justement xam nga. salsa sax c'est élitiste dafa am sax ñu koy du demal si waa tarba may nga wax leen salsa c'est que je veux dire que doo nekk ci gatsa gatsa ba pare di wax man man man man tey ban ban homme politique mooy toog nan ma euh, kaay génn si mbedd bi kaay def lii kaay def lii non euh, gis nga dañ dañu nekk ci benn situation boo xam ne mais combat jaru ko boole waale ci nee nañ le 14 bi Ousmane ko nee na moom mooy jiitu bu yeboo ñu jàpp ko moom bàyyi ñeneen ñi. Euh, waaw euh, Adja gaa ñi dañu toll nekkatuñu ci ay combat d'idées nekkatuñu ci combat boo xam ni affaire citoyenneté la dañu nekk ci combat boo xam ni c'est assez frontal affaire nit ak nit la problème d'ego la ñuy demee fi ñu toll nii y un camp qui ne veut plus de l'autre ñi nekk ci diggante bi sax il faut tout pour que ñu bañ leen dégg. Mm-hmm. mais Adja yow lu fekk nga invité euh, PM Abdoul Mbaye am na ñoo xam ne dañu naan mais fan la ko jëlee parce que léegi affaire bi ñaar la Ousmane Sonko Macky Sall képp ku nekk si digg bi nañ la relégué. nañ la relégué au second plan ba nga xam ne ñoom ñaar rek Ousmane c'est c'est doté de cette carapace là réussir na ba nga xam ne léegi moom bu ko bu PM toogoon wax si moom du ko tontu moom kenn rek lay tontu. président Macky Sall ñi ànd ak Macky Sall Ousmane rek la ñuy la ñuy la ñuy ciblé aussi. si mhm. diggante bi. les problème majeurs les problématiques majeures les thématique majeures kenn doot si wax gis nga euh, li ngay wax mbirum euh, les primo votants ak yooyu négal ba ñu egg ci ci mbir ma foofu la ko parce que ñoom jàpp nañ ni que ils ont déjà leur stock et que parrainage mënatu leen créer benn problème dañuy jàll par force moo tax même par rapport au médias ce sera extrêmement difficile pour nga tenir fi un débat purement euh, je dirais intelligent parce que loo fiy def lu sérieux les gens ne t'écoutent plus ñi ngi ñuy dugal ci benn cycle boo xam ne que ni li ñuy wax yépp à la limite c'est c'est un débat terre à terre mm-hmm. et malheureusement populisme boobu moom mooy yóbbaale ñu bare fépp foo fi gis un plateau assez sérieux les gens font tout pour que ça ne puisse pas passer donc ces primo-votants là aussi est-ce que ñoom xalaat nañu le jour ji moi j'ai été au meeting de de Pastef à Kër Massar mais la question que je me posais mooy est-ce que ces ces jeunes là ils ont déjà des cartes d'électeurs est-ce qu'il y a ce travail là pour leur dire allez vous inscrire tey bu ñu bëggee inscrire fan la ñuy inscrire bu ñu bu ñu tegee bu ñu ubbee période de révision bi du 6 au 6. Mhm. les 10 premiers jours installation lay doon logistique. 20 mhm. jours moo si des est-ce que en 20 jours mën nañu enrôler tous ces primo-votants là le pense pas. donc le pouvoir moom am na stratégie bu mu teg sànq père nee la booy xeex ak nit na nga xool moom lan la lay contrer mais j'ai l'impression que les gens ils avance en oubliant que ceux qu'ils ont en face ils sont très futés et ils feront tout pour ne pas perdre ce pouvoir là.